mu ne kii du ma ko laal ndax ay bàkkaaram koo waxal mu ne kii du ma ko jege bugguma ko sax xam ndax ay bàkkaaram soo ñëwee ci suñu borom nga ni ko maa ngi nii sukk sama yaram wu taq wi sama jëf yu bon yi sama bàkkaar yu bari sama jikko yu bon yi sama tilimaay maa ngi nii taxaw jàkkaarloog yow suñu borom bi mu jël la raxas la ba nga set wecc ubbil la xéewal li may wax nag am na ñu bari ñoo xam ne mënuñu ko comprendre moo tax léeg-léeg da gis ñuy reetaan léeg-léeg da gis ñoo xam ne dañuy saboter parce que lii may wax foog nit ku am tawxiid dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moo koy mën a xam kuy dund tawxiid dëgg ku gëm yàlla dëgg nekk ci sa biir xol waxuma la ku gëm yàlla am lum ci boole waxuma la ku gëm yàlla gëm keneen dugal ko ci sa biir xol waxuma la kuy gëm-gëm lu yàlla mais foog nga gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kese nekk ci sa biir xol soo yewwoon ne bisimilahi rahmaani rahim ngay lekk ne bisimilahi rahmaani rahim soo paree ne alhamdulilahi rabbil alamin di dëpp sa jëbi di ko sujjootal yàlla te boo dëppee sa jëbi di sentir ni yaa ngi sujjootal ku màgg ku tedd su may wax doo gis ne e eh, kii di wax de góor jigéen la kii di wax de caga la kii di wax de naankatu sàngara la déedéet danga naan ciy kàddu yi muy wax ciy kàddu yi muy wax bul xool jëmm ji wax waxal kàddu yi muy wax parce que jëmm ji di wax kàddu yi muy wax ñi nga xam ne ci ñoom lañu jekk pour ñu wax ko waxuñu ko tey kàddu yi may wax tey am na kilifa yu bari yoo xam ne ñu ngi leen topp di leen sujjootal di leen sukkal di leen raamal bu buñ ko waxoon ci télé senegal Sénégal gépp dañuy baax kàddu yi génn ci sama gémmiñ gi ba tax yéen tëddiwu leen six heures du matin mi ngi jot léegi dans vingt minutes ma fay live bi tëddi lii may wax te li tax tëddiwu leen xam ngeen ni dëgg ku ko déglu da nga naan dëgg la kenn nanguwut a dem su du woon dëgg li may wax xëy na nag man mi koy wax safuma leen wala buggu leen ma wala ne ma koy waxee neexu leen wala lii may man miy wax maa leen neexul waaye kaddu yi xam ngeen ni dëgg piir la mais munul leen ko nangu parce que ci ki mi génne la donc man mi koy génne man may ron personne bi man maay ki ko warut a génne parce que xëy na sama melokaan te dëgg la mais ki nga xam ne moo ko war a génne génnewu ko te bis bu génne woon kaddu yi Sénégal gépp dañuy baax muy kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar bu ñu génnoon taxaw wax leen wax ji barke alxuraanu karim Sénégal mooy gën ci àddina donc problème bi lool la mais ku gëm yàlla noppal na la ku gëmul yàlla sa problème la man de saa ngoone biram jigéen daa ngoone mboj mbaay penda masin mi daan way taayaani damel ma buso ab sa njaay birima daale ab sa njaay corokule ab sa njaay yàlla rekk laa bëgg rabbi zul jalaali wali karam moom rek laa gëm kese kese kese kese ëllëg yommal xiyaam ku fa am sa àjjana jooy dugalaate ku fa ku ku taxaw ñu ne la kii moo moom àjjana mooy woote ku ko yaakaar duggal ma xam ne duma dugg man bu ma yàlla dugalul àjjana ma xam ne duma ko jege duma ko xenc man sama àddina lépp yàlla laa ci yaakaar kese kese du ndey du baay du wàlliwu du yonan du xut bu samaan du dara ëllëg yommal xiyaamet yàlla kese kese kese kese kese kese sek sek sek rek rek rek xam nga rek K E R rek rek dara yàlla kese kese kese te loolu nag yombul ci ñu bari te muy dëgg ku ko am da ngay noppaliku man duma tëdd guddi wala ma jóg dajeek samay moroom wala ma war a génn bay sangu wala may jël ay cuuraay di ko diwoo wala ma jël ay saafara di ko raayoo wala may takk téere yàlla tere fu ma doon dem di fa dajeeg téeméeri junni nit mu leer ma nit ñi ñëpp samay noon lañ takkuma fa dara damay dem te yàlla tax yàlla lay jiital wutuma bayre sëriñ tuuma takku ma naanu ma bi ma gëmee daan naa ko def de bi ma nekkee Afrique yàlla samay waajur jox ma ko takkal lii defal lii nangama nangam waaye bi ma yàlla gëma bi ma gëstoo suñu borom ba xam ne kenn du suñu borom moom dong moo jara wiiru moom dong moo jara yaakaar moom dong moo jara gëm moom dong mooy buur moom dong moo mën dama bàyyi lépp te ba ma ko defee sama teraanga dafa gën a yokk ndax lu ma war a joxi sëriñ pour mu jox ma bijjën wala pour mu ñaanal ma ma jëndee ko jaaro baaraam wala ma jëndee ko lam wala ma jëndee ko oto bu rafet wala ma jëndee ko mbubb mu rafet li ma war a jox nit pour mu defal ma ko ay béjjën béjjën yoo xam ne xar bañ ko jëlee wala nag bañ ko jëlee béjjën ba bu doon bu doon day sàmm dina sàmm nag ba ba kenn du ko rey waaye nag ba rey nañ ko ba lekk yàpp wi yaa ngi dégg donc lu ma nar a jëndee loolu ma jël ko investir ko ci sama bopp su ma amee sama soxla lal sama sigaada ñaan suñu borom te man mbaay dama gëm ni su ma ñaanee sama borom dafa may may parce que dama koy ñaan ci mbaax mbaaxam ak yërmandeem mu may ma ko ma gis ko ci saasi man damay ñaan yàlla am sama problème taxaw jàkkaarloog suñu borom tàllal ko samay loxo ñaan ko ne ko yow yàlla yàlla boo koy ñaan danga koy tagg ni ngay taggee doomu aadama yi danga koy taggee yàlla man ni may taggee giir ñu noon lay taggee suñu borom man dama koy tagg ba mel ni dama tiim ku ñuy ngénte di ko tagg ndax yàlla dafa bëgg ku koy tagg ñun jaam ñi dañoo wër di tiitaroo suñu borom ndax yàlla daf ñuy tiitaroo te tagg yàlla ci bàkk ko la di ko tiitaroo la yàlla danga koy tagg yàlla danga koy màggal tagg yàlla jalla jalaaluhu wa azzal kamaaluhu rabbi samaawaati wa ma fil ard suñu borom bu baax bi suñu borom bu tedd bi suñu borom bu bari yërmande bi suñu borom bu sell bi suñu borom bu rafet bi suñu borom bu màgg bi suñu borom bu kawe bi suñu borom bu yiw bi suñu borom jalaal bi suñu borom bu ikraam bi suñu borom bi nga xam ne man sa jaam bi nga xam ne yaa ma bind yaa ma sàkk yaa ma moom yaay sama borom ma kontaan ci bind gi nga ma bind kontaan ci nekk gi nga nekk sama borom kontaan ci jaamu gi ma nekk sa jaam parce que yàlla da kontaan ci bind gi la bind kontaan ci nekk gi nga nekk jaamam nga ni ko maa ngi lay bakk maa ngi lay sàbbaal maa ngi lay kennal di seede ne yow dongu yaay yàlla yow dongu yaay dëgg yow dongu yaay buur yaa njëkk yaay mujj yaay al awal yaay al axiir yaay al xayu yaay al xayumu yaay al karim yaay al malik yaay al aziz yaay al jabaar yaay ar rahman di ar rahim di tudd turam yu mag yi yaa njëkk yaay mujj yaay dundu te boo fi jëlee lépp loo bind yow dong yaa fiy des ya bind adduna yi ya bind allaaxira yi yaa bind asamaan yi yaa bind suuf yi yaa bind jant yi yaa bind biddéew yi yaa bind weer yi yaa bind ajjana yi yaa bind safara yi yaa bind nit yi bind jinne yi bind malaaka yi bind lu ñu xam lu ñu xamul bind lu ñu yëg lu ñu yëgul yaa bind lépp ya sàkk lépp yaa moom lépp yaay boroom lépp te kenn bindu kenn sàkku la kenn moomu la yaay buur yaay yàlla yaa tedd yay nobul yaa màgg amoo ndey amoo baay juróo kenn kenn juru la amoo maas amoo moroom amoo dendandoo amoo luñ lay bokkale amoo luñ lay tolloo leel amoo luñ lay nuroo leel yaa ñu bind sàkk ñu di suñu boroom di suñu xarit di suñu yërmande di suñu lépp àddina ak ñuy say mindeef di sa jaam di sa jaam ñu torox ci sa kanam saa yow duñu dara ci àddina ak àllaaxira yaa nu mën a rey yaa nu mën a dundal yaa nu mën a jéggal yaa nu mën a baal yaa ñu mën a mbugal yaa ñu mën a may yaa ñu mën a xañ maa ngi lay màggal suñu borom bu tedd bi maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm fa sant tàmbalee ak ngërëm te amul fu mu yem te yow yàlla yàlla bu mu am fu mu yem li des ki sama dund gi yal na nga ma jéggal samay bàkkaar yal na nga ma may ma gëm la yal na nga ma may ma dëkk ci di la sant yal na nga ma may ma dëkk ci di la gërëm yal na nga ma may ma dëkk ci di la màggal yal naa lay màggal ca màggal ga nga yelloo maa ngi lay sant jël la màggal di la sant ci bépp cant goo xam ne yaa ko yelloo bépp màggal goo xam ne yaa ko yelloo lépp luy sant goo jagleel sa bopp lépp luy màggal goo jagleel sa bopp lépp luy sabbal goo jagleel sa bopp lépp lu la sa malaaka yi di sante lépp loo santee sa bopp lépp luy jëf ju baax joo xam ne bu ko sa malaaka yi defee sa yonant yi def ko sa mbindeefi def ko te buñ ko defee nga kontaan maa ngi koy jël ci limu lépp loo bind ak loo bindul yow suñu borom di la ko sante di la ko gërëme di la ko ko màggalee ci nekk gi nga nekk yàlla bind gi nga ñu bind sàkk gi nga ñu sàkk yërmande gi nga am ci ñun sutura gi nga ñuy suturaal jéggal gi nga ñuy jéggal saniy bàkkaar aar gi nga ñuy aar musal gi nga ñuy musal ci musiba yi lépp loo ñu defal mënuñu ko lim ndax mënuñoo lim li ñu defal yow dong yaa xam ni mu toll ñu la ciy sant ci limu lépp loo bind loo bindul rabbi zul jalaali wal soo ko waxee yàlla dala naan loo bëgg ma may la ko ñaan sëgëm doomu aadama ngay tiim wax ko lii mu may la lu dul jeex mbindeef tey yéen ci live bi sama noon yi ma gën a bañ ku ma ci tiim wax la wax ju rëy jii loo am dig ma ko may nga tiim sa boroom wax ko lii te fekk nag ba ko koy wax day fekk mu doon lu dëggu ci yow parce que boo nee yàlla yow yaa sell yàlla yow yaa tedd yàlla yow yaa màgg doo fekk doomu aadama naan ko ku sell ki ku màgg ki ku tedd ki da nga naan kenn sellul kenn tellul kenn teddul ku dul yàlla soo waxee yàlla wax ju ji wax ko ko ci sincérité parce que day dëggu yàlla kenn mënu ko nax kuy liggéeyal yàlla di ci roof ay nax su lay fay roof ci ay nax ñu bari dañuy ñaan yàlla seen ñaan du nangu parce que sincèreul lii pour nga wax ko suñu borom day ànd ak sincérité danga koy wax mu mel ne danga jàkkaarloog yàlla mu ne la loo bëgg nga ne ko maa ngi lay sant di la gërëm di la jëggalu nag di la tuubal samay bàkkaar parce que ñaan li nga njëkk a bëgg yàlla defal la ko muy jéggal ma nga ne ko maa ngi lay jëggalu lépp lu ma mës a def ci àddina ci bàkkaar lu mu mënti doon ci samay jëf muy lu ma fanaanoo lu may yeewuwaalee lu may def ci lu ma yëg lu ma yëgul lépp loo xam ne maa ngi koy def ci bàkkaar bu ndaw bàkkaar bu mag bàkkaar bu nëbbu bàkkaar bu feeñ bàkkaar bu ma yëg ak bu ma yëgul bàkkaar bu ma def ak bu ma defagul bàkkaar bu ma yëg xam ak bu ma xamul samay rëcc-rëcc samay juumte samay tayeef samay bànneexu bakken lépp lu ma sa malaaka yi bindal ci bakkaar te dara taxul ma def ko parce que yàlla soo koy jéggalu da ngay nangu ne da nga def bàkkaar nga ne ko dara taxul ma def ko lu dul topp samay bànneexu bakken yow suñu borom bi nga xam ne yaa gis bakkaar yi te mën ma cee mbugal ndax yaa ma bind te yaa ko sañ te yaa ma moom waaye yaa ma ko mën a jéggal ndax yow yaay borom yërmande yow yaay borom jéggale te yaay jéggale bàkkaar maa ngi lay jéggalu maa ngi sàkku ci sa yërmande di la tuubal samay bakkar di la jéggalu ci limu mu lépp loo bind ak loo bindul bu la neexee nga teg ci astaghfirullah allazi laa ilaha illa huwa alxayul xayum wa tuub ilayhi laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin allahuma inni innaka afuwun karimun tuxibul afwa faafu ani bu la neexee nga teg ko ci waaye nga ñaan ko nga ne ko maa ngi lay ñaan yàlla nañ ma jéggal jéggal mbooloo mi jullit ak bépp doomu aadama yéen samay nooni sax bés bu ne ma ñaanal leen te du ngeen ko yëg ndax saa ma ñaanalee sama bopp dama naan yàlla na nga jéggal mbooloo mi jullit ak bépp doomu aadama te yéen ay doomu aadama ngeen kon yéen da ma wër di yéene jàmm parce que man dama leen yéene jàmm moo tax saabu bu ma yéenee bon du ngeen ko gis yéen ñi nga xam ne sax da ngeen ma bañ te bëggu leen ma gis di ma yéene bon chaque jour ma ñaanal leen parce que su ma ñaanee dama naan yàlla yàlla nag ma jéggal jéggal mbooloo mi jullit ak bépp doomu aadama donc yow doomu aadama bi bokk nga ci te nit ki li nga yéene nit ñi rek mooy ñëw ci yow moo tax man sama noon du ma gis ci lu bon sama noon duma gis ci lu lu may ci lu bon sama noon du gis ci torox tàngi parce que dama leen yéene lu baax moo tax ku ma yéene lu bon yow yaay am naqar man toujours da may gis ma ne ci jàmm nga naan kii lan mooy secret fekk dama la yéene jàmm waa man chaque jour man naa ne samay noon mhm. xaaral ma bàyyi leen sax a sonn war a wax yëpp dafa bari.